actualité moom lañ koy tàmbale rawatina li nga xam ne moo di yéenikaay bi nga xam ne moo di les échos les échos moom moom lañ koy tàmbale tey nag li mu xëtee si xëtam gu njëkk moo di maire Ndakaaru di Barthélemy Dias moom nag jamono gi jàppale ne dafa posé li nga xam ne moo di euh, débat bi si euh, politique sociale euh, fee ca ville de Dakar ginnaaw gi nga xam ne démb conseil municipal am na Barthélemy Dias nag yëkkati war na ay kàddu ñëw si li nga xam ne moo di wàllum social wàllum di maanaam di maanaam bourse yi nga xam ne moom la ñuy joxee si xayma euh, moom moomee la mu jàppoon ne euh, fa lañ war a yem moo di 3 milliards waaye nag buñ ko xoolee euh, dépassé nañ ko beneen bi nag lam ca wax moo di nag jamono gi jàpp leen ni ville de Dakar nekkul Croix-Rouge ba war a mën a jàppale ñeneen leneen li nga xam ne aussi ñëw na ca moo di bourse yi nga xam wala bourse sociale maanaam yi nga xam wala aide yi def mooy autant pour moi lu toll si 600 millions yoo xam def nañ ko si wàllum tabaski moom nag lam ca jàpp moo di 600 millions yooyee mën na tabax benn hôpital moom nag lam ca wax moo di jamono gi euh, les Dakar waa ñoom ñooy xool ndax social googee dañ koy continuer wala ñu arrêté ko ngir mën investir mu mel ni ne Barthélemy Dias jamono gi daal samp na point si li nga ne moo di social bi tim sa maire suñu maire maire Ndakaaru nee nak nag il est temps social bi liñ ci def si koppar bëri na te ville de Dakar nekk fi rouge

dafa war a dem ci loolu parce que tey jii bu fekkee ne dafa ne nañu choisir entre tabax ay hôpitaux wala tabax ay école par rapport ak social boobu te mu ne te mu nekk lu ñu budgétiser je vois pas sens bi parce que budgétiser nañu pour école budgétiser nañu pour ay hôpital ak yooyu yow léegi su ko bëggee dugal ci hôpital te amul ay médecins yu mat su ko bëggee tabax école te amul ay professeurs yu mat ça nous sert à quoi nañ jox sénégalais yi ñu ñu lekk ak ñu naan parce que si ndimb si ndimbal boobu lañ tollu daaw la am na nu mu doon am na nu Sénégal doon doxee xëy na du ñu soxla ndimbal boobu wala li muy kaas tey en disant que ne xaalis bi ñu ciy dugal dafa bëre bu boobaa xëy na xaalis bi ñu ciy dugal du bëre mais fii la Sénégal toll ci ñoom ñu ñuy dimbale ñoom ñu yore morning bi di ñu dimbale kon il faut que ndimbal bi nekk fi ba tey. xam nga sommes ans la ñu aussi ndax ko nangul benn parti li wax moo di bu aussi mairie nekkul social rek au moins war na investir war tabax ndaxte nee 600 euh, millions fuñ koy défé ci aide sociale pour euh, tabaski 600 euh, millions yooyu mën nañ ci tabax hôpital da tay hôpital bobu mu nekk biir manam durée à long terme wala investissement bo xamné ñepp dañ ci da bo tabaxee hôpital ba paré instant bi amna ay hôpital yu nga xamné ñu ngi fi bo tabaxee hôpital ba paré te mëno fa duggal ay ay médecin lan lañu jëriñ est-ce que do tabax hôpital bobu nek def ko ben, mu nek ben, édifice rek et puis c'est tout daaw da pour ñu mëna a dem hôpital il faut ñu lek il faut que ñu naan en plus c'est budgétisé social boobu dañ ko budgétiser pour dimbalé ko wa wa dakar donc foog mu dem fofu hôpital mais nak tim aussi ndax mënuñu ko nangu lool limu mu budgétiser. comme exemple li wax modi ci si wàllum bourse à 3 milliards lañu ñu budgétiser woon. mais buñu mhm. xolé ëpp nañ ko ndax demande bi ëpp na lool ça aussi ndax mënuñu ko nangul li wax momit né ëpp na. ëpp maanaam ëpp loolu loolu ay prérogative la bu mu ëpp bu fekkee ne dafa jàpp ne 3 milliards la budgétisé woon pour euh, euh, ña ban som nga wax. bon ak nu mu mënti demee na yem pour man na yem si li mu budgétisé su ëppee loolu loolu moom la essaye à comprendre mais hmm. ndimbal moom foog muy am te moom encore une fois j'insiste ndimbal boobu moo ko desee ci sénégalais yi muy jéem a teg nii ci li li des nii ndimbal boobu moo ko booleeg sénégalais yi de ndimbal boobu moo ko booleeg sénégalais c'est-à-dire waaw mooy dafa am fu ko sénégalais yi tegoon ak bët bu ko sénégalais yi doon xoolee. sénégalais fa lañ ko teg ba tey. ah loolu daaw de yow xam nga daaw dama lay posé question de. non déedéet dama lay posé question de. Mhm. waaw loolu daaw de yow yaa ko wax mais ñun jaaykatu new yeeg dànq yi ak yooyu am na bët bu ko doon xoolee te bët boobu moom sérieusement daaw da teggi nañ ko donc social bi moo ko booleeg ñun pauvres yi xam nga comme dañu budgétiser woon pour social bi je suis d'accord quand il dit que ëpp na warul ëpp mais loolu seen liggéey la ñoom pour ñu yemale ko fiñ ko fiñ ko fi ko tracé woon. légui quant à hôpitaux yi ak euh, yi mu wax noonu je pense que amna na ñeneen ñu am prérogative bu def loolu. Pape euh, conseiller ville de Dakar aussi nga nek ci euh, commune tay point bi waxtane waxtaanee rawatina nga fekkee démb conseil municipal fee ci ville de Dakar ñu dégg né sen maire wala suñu maire mu né ville de Dakar nekul quoi rouge tay lan mo waral mu wax loolee voilà merci beaucoup Daouda di jaajëfal euh, Tima. Mhm. si première question bi nga xamné ne nañ ko par rapport aux propos yi nga xamné monsieur le maire de la ville de Dakar moko tenir lolo du conseil municipal bo xamné ne démb la woon euh, wax pour le moment euh, jëlmal sañu jëlmal kàddu mooy ne Barthélémy Dias c'est le maire de la ville de Dakar le maire de la capitale De, à son honneur il faut lui reconnaître, il a replacé l'institution municipale au cœur des Dakarois. Parce qu'avant les médias, peut-être une attraction de la ville de Dakar am tay am. Donc lolu faut ko ci jaajeufal du ko ci gërëm un dayo dayom la ak parce qu'aujourd'hui, la ville de Dakar est devenue attractive. Mm-hmm. Légui par rapport à propos yi, propos en fait de faut tenir euh, à l'ouverture de la session ordinaire nous entamer ce qu'on appelle les débats d'orientation budgétaire pour préparer le budget de 2024 mm. donc c'est un constat à son niveau mais mon moom la engagé mm-hmm. mais ça n'engage pas le conseil municipal mm-hmm. et celui qui est souverain au niveau de la ville de Dakar c'est le conseil municipal mm-hmm. conseil municipal le maire et son administration si gis-gis ñu doxalee ni wala par rapport à budget comme euh, ma sœur nu mu ko waxee par rapport au au au au social yu nga xam ne c'est vrai elle l'a dit tout à l'heure c'est un budget bu nga xam ne voté pour les secours pour ce qu'on appelle social secours aux indigents nga xam ne day jël euh, ñu nga xam ne dañu feebar nga problème tabaski pour les fêtes nous nga des day souvent et loo nga xam ne budget euh, budgétisé nañ tamit bourse yi mooy affaire école yi moy affaire santé bi moy affaire bu né école yi précision buñ ci wara la ville de Dakar compétence bu mu am moy les CEM et les lycées mhm. ni les ni les écoles primaires qui relèvent des communes des mhm. communes des communes qui sont des communes respectives mais CM ak lycée yi la mais lu du waxé des secours yi c'est vrai 600 millions la dañ dañ ko war a wala dañ ko war man personnellement jàpp naa ne sax dafa parce que Sénégal moo toll foofu. Mhm. Sénégal moo toll les gens sont. sont extrêmement pauvres. Mhm. il faut ñu jàppale leen. Mhm. mais tamit euh, laaj na quel que soit soxla yi quel que soit le montant bon, mais dégager un nañ ko social si wàllu le muy 600 millions mais war nañ def un audit askan affaire wax mu ngi dem fu mu war dab c'est extrêmement important. Est-ce que les. non, non, non, on pose le débat, mais ce n'est pas dans nos prérogatives ni dans nos compétences. C'est l'administration, mon développement, avec les services compétents de l'État. Mm-hmm. Parce que la ville de Dakar, si bir état la bok, état daf ko war a saytu xool ndax lu budgétiser ndax mu ngi dem mm-hmm. niveau mm-hmm. mais ce qu'il faut dire si wàllu secours c'est vrai war nañ ko xoolaat Nakh destinataires ñu jot est-ce que ñu ñu ngi ko war a jot ñooñu leen ñoo mm-hmm. est-ce que les décorois qu'est-ce ñoo koy jot mm-hmm. parce que beaucoup de gens dañuy jot si secours yi te dëgguñu Dakar mm-hmm. te loolu beneen fait la beneen difficulté la donc lu bat wax mun nañ ko waxtaan à long et à large mais ce qu'il faut retenir man si ma gis-gis rek moy né on va on va vers euh, on on a on va ouvrir les débats d'orientation budgétaire vendredi leen ko war commencer à partir de 10 heures, ça va durer un mois pour terminer, permettre par le vote du budget. Mhm. Mais lui, devait permettre, nous, en tant que conseil, nous, en fond et large, pour voir les tenants et les aboutissants, parce que secourir secours et social, c'est une compétence transférée. Mhm. Le maire, il a l'obligation de donner des secours, d'assister les Dakarois. Mais, par rapport à ce secours que euh, moi assister ñi nga xamné modi les Dakarois. Bon dafa am ben fait bo xamné sincèrement euh, surtout si yenn événement yi modi ay ou wala ki Euh, wala si yenn programme yoo xam ne nekkul sax dakaar damay gis ne dañ naan euh, maire Ndakaaru euh, Barthélemy Diaz wala commune wala tey ville bi indi na soutien wam si gox yooyee. en dehors du territoire de Dakar. waaw ndax loolu jàddu na yoon. est-ce que ak ak ndax lolu ci social bi lay jógee. Mm-hmm. non eh, mais buñu ñu buñu buñu wax ñom ci euh, buñu wax dañ nan ndax maire indi wala maire ci social la ko jëlee. buñu wax mom maire maire Dakar. waaw mais fan la ko jëlee. non il faut il faut faire la part de genre xam nga Sénégal politique bi jaxasoo solo bo xamné dañuy dañuy jaxase l' et la personne. Mhm, mhm. le gars peut intervenir à titre personnel. Ah, c'est la difficile voilà difficile à notre niveau de le dire. Ah. loolu day mais toujours il faut retenir en tant que collectivité territoriale la commune la ville de Dakar Nous na am des conventions. avec d'autres communes à l'intérieur du Sénégal Nous avons ne dañuy am ay partenariat peut-être ñii dañuy indi lii ñuy indi lii loolu yëpp mënoo ko jugement de valeur comme ça nii loolu laay wax sànq il faut nous disions bo xam ne seen un audit technique et financier pour xam niñ koy liggéeyee social bi nu koy fuñ koy def ndax baxna wala baxul wala dañ ko war orienter orienté de quelle manière boo xam mais ce qu'il faut retenir moy na social mënut a dañ dañ ko war yok pour la ville de Dakar parce que euh, les Dakarois on a. mais mais mais bu nekk dañoo yok social bi té buñ waxé ville aussi du social rek. dégg nga ne euh, fi mu né fuñu ñu des 600 millions. Hmm. si Walum ay tabax si hmm. mën nañ faa tabax benn hôpital mën nañ faa def ak mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir le maire il s'est trompé sur ça sur ce <laughs> discours là vraiment ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir faire du social et faire des infrastructures des ça n'a rien à voir dans la nomenclature budgétaire beaucoup. lii c'est social li da nga investir et c'est voté y a un budget qui est là le hmm. maire ce qu'il devrait dire que que assiette suñu assiette euh, fiscale bi dafa tuuti qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le budget de la ville de Dakar parce que budget de la ville de ñu nous dañuy 60 milliards mais a le budget réel est 30 35 milliards mm-hmm. donc l'effort qu'il faut faire c'est rationaliser ce qu'il y a pour mm-hmm. axe de réflexion et je pense que faire des audits aussi c'est important c'est important et te est-ce que est-ce que tu vois tout, ça fait, peut aider à, alléger ouais. je suis en ah. accord avec vous sur ça, parce que mm-hmm. man euh, c'est pas trahir le, conseil municipal de la ville de Dakar l'année dernière quand on a fait la journée de l'entraide le maire ville de la ville de Dakar gagné un milliard ne à à askanu Dakar c'est vrai c'est bon l'acte est louable mais man en son temps j'avais pris parole au, sein du conseil municipal pour dire que jàpp naa discours bi mu tenir man mu tenir ko ça fait 1 an. Mm-hmm. jàpp naa du ni mais mm-hmm. peut-être que né opportunité bu mu ko tek ak contexte bi ak pertinence bi. peut-être la ñu moo quoi mais mais c'est social bi ñu bëri dañ koy wax mu ngi si commune yi ville bi euh, même aussi état bi bëri na coow luñ ci wax modi di majeure partie bu koy def clientèle politique la. Ben. ndax yéen aussi les conseillers parfois di ngeen jéem poser le débat xol kan ak kan ak kan lañu wara jappalé wala critère bi li la wara a doon foofu audit bi mooy dugg non ñun on peut pas xam nga ñun sur les principes rek la ñuy dem sur les principes la ñu waxee mais en réalité la ville de Dakar c'est une gestion bu nga xam ne le maire essaye mu fexe jàppal ñëpp bokk si mhm. toujours et li gën a dina am yu nga xam ne matagul des na mais après lui mënoo def jugement de valeur sur ça mhm. audit bu ñu moo koy moo koy saytu wala les services compétents d'état mais tant que conseil municipal xam nga conseil municipal rôle am mooy nga saytu nga joxe xalaat mhm. mooy débat orientation budgétaire mais dans la gestion quotidienne la réalité des faits c'est pas de nos ressorts ñun amuñu benn assis benn contrôle sur, sur, si loolu quoi lu ñu mun rek may wax après à la fin du budget ñu xool compte administratif bi compte xool compte des échelons bi nga xam percepteur moo ngi pour xool ndax lu ñu sur le budget en réalité askan tegu na wala teguwul nga mëna a joxe mais lay day fekk béy woy na hein, parce que man daw de gis naa ñu nga xam euh, waaw duñu ay néew du doole wala manqué wuñu tamit lu bëre te pourtant dañuy bénéficier wu. c'est vrai si aide c'est pas normal. c'est vrai gis naa ñu nga xam ne manqué wuñu. nammuñu lu war a tax ñu dem di jël ci aide yooyu. c'est vrai léegi man fekkee ne manqué wu ma loolu ma dem jël aide boobu ça veut dire que yàqal naa kenn ku nga xam ne moom soxla woon na ko. Mhm. donc et pour man audit bi mooy régler yooyu yëpp. Mhm. Mhm. Euh, mais la mais la vérité vous la vérité pour ma bañ a trahir la vérité même le maire de la ville hier il a il a il a repris il a dit les mêmes propos que vous. mais buñ euh, les aides les secours c'est pour les nécessiteux. Mhm. mais quelqu'un mu xam sénégalais yi dañ voilà question de culture la quoi am nañ de responsabilité. mais ñun tamit am nañu part de responsabilité. ci bëri parce que sénégalais yenn saa yi mooy yow xam nga ne lii soxla woo ko am na ñeneen ñu la ko a soxla pourquoi aller prendre ça. mais mais mais au moins balaa ñu joxe secours dina am enquête boo xam ne dina am doo ñëw rek ne da nga am ay jafe-jafe. ñu jox la c'est la même... non mais Daouda c'est la même chose que les bourses familiales ñuy bénéficier bourses familiales est-ce que ils sont éligibles. jërëjëf les failles sont partout c'est un problème de euh, culture et de comportement. point boo xam naa ne duñ te aussi am na yeneen yoo xam ne moom la ñu moom la ñu war a moom la ñu war a continuer euh, ni ma leen ko waxee ne yéen ñi nga xam ne yéenuy suivre mais monsieur le maire na jàpp ci Eddy de moo ko moo ko mooy suñu mooy loolooy linkam instant bi ak ak ñun jaaykatu new yeeg dank yi eh, du ci dellu dégg nga lu ma eh, côté politique link baa ngi fi ba tey ça c'est le conseil municipal qui est souverain moom ak askan wi dafa ragal wax ñun jaaykatu neew yi dawalkatu sareet yi xam nga ñun néew di doole yi li ñu boole ak moom instant bi et yooyu la mais Fatim li ma mënul d'accord xam naa ne balaa may dem si beneen point bi <laughs> mooy borom Dakaaru Barthélemy Dias nee na mooy borom Dakar te dafa boo xam ne ñëpp gis nañ ko nga tey li ko deseeg askan wi dañ ko gañeel gañe bu ñëpp gis daaw da dañ xam nga dañ ko gañeel gañe bu ñëpp gis daaw da génnal si li nga nekk et yooyu moo ko booleek ñun yaaykatu new yi ak dànq yi na ci na ko teg fi mu ko war a teg jàpp ci kon ne di ko joxe ni muy wax ñu koy dégg gis nga et yooyu bu fi nekkatulee mënul wax lu dugg suñu bopp instant bii de. jërëjëf xam naa ah, buñ xiif tax <laughs> ñu koy déglu instant bi <laughs> jërëjëf xam naa buñ toppee euh, point boobu dañu fa jógee euh, dañuy ah, dem jël ji euh, lii quotidien lii quotidien la ñuy jël lii quotidien nag tey li mu xatee si